yoon wi ngeen ñuy won yéen kilifa diine ñu ciy jaar gisuñu ci lenn loo xamante ne lu ñuy rëccu la ndax weesuwul topp leen yàlla topp leen yonent gi roy leen ci mag ñu baax yi te loolu même ci li ñuy yore muy wàllum àdduna muy réew mi suñu inspiration gu maandute yépp ci loolu lañ ko lal maanaam naka lañuy def ba li ñuy doxal mu doon loo xamante ne dañ ko teg ci yoon tout le temps damay wax sama collaborateur nañu doxal yoon bu dee yoon moo baaxul nañ ko jubbanti waaye ñu teguwaat ci yoon li ci tegu mooy justice maanaam est-ce que li ngay teg kenn teg ko ci yoon moom ngay teg ñëpp teg ko ci yoon mu bañ a am yoon wu tëddee njaaxaanaay yoon bañ a jéng mu am ñu ñuy bàyyi ak ñu ñuy topp muy deuxième pilier bi beneen bi mooy dige muy bor ci gor dige bor la ci gor mooy bi ñuy waxtaan ak sénégalais yi ci li ñu bëgg Sénégal doon ci lan lañ ko laloon est que ñu ngi wàccoog loolu ci suñu kéemtalaay kattan doonte xam na nañu ne yéene gi moyens yi tollewuñu noonu waaye li ñuy yàlla jagleel ci xéewal naka lañ ko sàmmee ci nu mu gën a selee ba lu ñu bokk ñëpp jot ci loolu nag soxla nañu ci diisoo kilifa yi ndax dañoo jàpp ne kilifa yi bu ñu xamee fu ñuy dem ñu jox seeni ndigal lay wax sag ak seeni xalaat yu rafet barkeel ko gi seeni ñaan teg ñu ci yoon buñ ñu jàppalee kon suñu tànk dina gën a dëgër ci fu ñu bëgg dem ndax kon lépp njëriñ lay nekk ñoo tax ñu ngi lay wax ni lépp loo xamante ne ay reforme yu majeure la maanaam ay coppite yoo xamante ne nit ñi mën nañoo xam lan moo tax mu jóg dinañ ko dee dem waxtaane ci ñoom diisoo ci ñoom jël ci seen xalaat sàkku ci seen ñaan ba bu ñu koy doxal mu doon loo xamante ne ñoom ci seen bopp duñ ko déggee ci weewu béy duñ ko fore ci weewu béy waaye ñun ñooy ñëw ci anam yi war waxtaan ceeg ñoom te biñ